bi nga xam ne moo ñu tax daje ba tey jii gouvernement Sénégal songu ko ko woon ni ko war a songe ñun nag suñu mbébét mooy ñu songu ko te régle ko définitivement ñu jàpp ni faaw rek état bi monter en puissance faw état bi gën a am dëgër ak taxawaay ci mbir mi te dina ko am bu soobee yàlla loolu dafa laaj nag ñu am moyens nga xam ne jumtuwaay ak koppar boo xam ne moo ñuy dooleel pour ñu mën koo def loolu ni mu amee ci domaine bii la amee ci yeneen domaine yépp nag lutte wala ci construction ay ouvrage d'assainissement yooyu dinañ ko saytu bokk na ci yi nga xam ne ci fan yi di ñëw dinañ ko auditer ba xam 717 milliards yooyu fan la dugg